bismillaahi rahmaani rahiim rabbi srax li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu xawli bokk ñi déglu assalaamu aleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu asbaxnaa wa asbaxal mulku lillaah walhamdulillaah wa laa ilaaha illallaah wallaahu akbar allaahumma innaa nasaluka xayra maa fii haadal yawm wa xayra maa ba'd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 jaajëfal alxaaji sëñ Mbàkke si la mi nekkoon ci jataay bi ñaanal ko tawfiix sutura ak ak poche def dara niñ koy baaxu ji defee fajaru àjjuma mooy ànd ak yéen ci ilallaahi ibaadallah ilallaahi ibaadallah di ci ànd ak ak docteur Yuusuf Alqaradawi ci téereem bi tudd fi tariqi ilallah téere yooyu muy taalif tudde ko fi tariqi ilallah am na ci bu tudd ak tawbatu ilallah ñu tënk ko tudde ko ilallahi ibadallah tàmbali woon ko ca téereb ibnul xayim al ba ba mu tudde woon madaariju saalikiina fii manasili iyaaka naabudu wa iyaaka nastain sunu borom daa wax ne yaa ayyuha allazina amanu tuubu ilallah borom bi def ni yéen ñi nga xam ne gëm ngeen tuubu tuub leen dellu leen ilallah tawbatan nasuuxa ñu àndoon ak yéen ba tolloon ci tomb bu am solo muy samaraat tawba muy meññitum tuub maanaam bu jullit bi tuubee rëccu lim doon def bàyyi ko fasin yéene du ko def dafa am lu ko tuub gi di defal la ca jiitu mooy faral ko ay bàkkaaram la ca tege mooy dugal ko aljanna la ca tege mooy beesalaat ak gëmam ci beesal gëm nag ci lañu tolloon muy tomb yu am solo yooyu ba ñëwoon ci wala seen laay doona ma lay ila an axara ñu war a door tey incha allah ci tomb bu am solo ci tomb yooyu di jenn laay ju nekk ci alxuraan qaala taala wa inni la gafaarun liman taab wa aman wa amali sa wa amila saaliha thumma htada sadaqallaahu l-aziim borom bi subhaanahu wa taala jalla jalaalu azza kamaalu ci turam yu sell yi turam yu màgg yi meloom yu sell yi te màgg daf ne wa inni te na ngeen xam ne man la xafaar siixa bu am solo la suñu borom jëfandikoo fii soxnañ jinde wa inni la xafaar la xaafir la xafoor la xafaar siixa bi mooy baalekat boo xam ne jëggalekat boo xam ne tooñ munta rëy gu ëpp wala ba ngeen baal ma bàkkaar munta rëy ba ëpp la xafaarun liman taab waaw yàlla nu jëggal waaye wa inni la xafaar waaw ak a mën a jéggal nga xam ne bu dee ci àdduna bu doon nit kese kese dana jéggale ba far ay bokkam mere ko waaw ba far ay bokkam mere ko la xafaar waaw yàlla nu jéggal mu teg ci nag ay yëf kan lay jéggal liman taaba muy benn wa aamana muy ñaar wa amila saaliha mu ñett summa htadaa muy ñeent ku boole ñeent yii da nga bénéfice woo ci njëggalam gii waaw ku boole ñeent yii danga ah, da nga bénéfice wu ci njëggalam gi wa indi la xafaar ngir kan liman taaba ci kutuub waaw ci kutuub ba mu tuubee wa amana mu wéetal yàlla mu gëm ko moom kepp ba mu defee ñaar ñetteel ba wa amila saaliha muy def lu baax li des ci dundam su mahtadaa topp mu jub tege ca yoon wa loolu borom bi ne na ku ko def rek tubarkalla jéggal na la ba demee ci suuratu Taaha aaya 82 fa la ko borom bi subhaanahu wa wax wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila saalihan thumma htada waaw euh, tuub na gëm na jëf jëf ju baax jub na waaw jub na topp mu jub mbokk yi yàlla na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot wa li tajdiidil imaani fi nafsi taaib dalail ne nañu màndarga yi wane ci bakkanu nit ki ne mi ngi beesal ngëmam walla ngëmam mi ngi bees dafa am ay yëf yoo xam ne buñ ko gisee mooy màndarga yu koy wane waaw ay màndarga yu koy wane wa aayatun yaarifuha saahibuha wa yaishuha waaw am na yëf yoo xam ne bu xewee rek nit ki daal di yëg yooyu ay tegtal yoo xam ne dana yëg ne imaanam a ngi bees waaw imaanam mi ngi bees ndax luy bees ak ràpp ak luy wàññi ko ko yokk luy wàññiku lu nekk mën naa jeex lu yokk lu nekk mat naa mën naa mat kon tëjdidul imaan day am ci ay tegtal ak i màndarga yuy wan nit ki ne moom mi ngi eh, beesal gëmam walla gëm gaa ngi bees minha minha soxna sala bokk na ci yooyu mooy nit ki xam baaxu boroomam subhaanahu wa ak sutura gim ko suturaal jamono jamuy def li boroomam di tere Hmm? waaw maanaam nit ki su xamee ne boroomam xam na ko te yóbbu la yow ma tub la saraayir bu ko baalu dana ko leeral xam googu muy xam mbaaxu borom bi subhaanahu wa loolu day tegtale na kon imaanam mi ngi bees si waaw te xam ne lépp lu mu def borom baa ngi ci tegoon bëtam ndax alam yaalam bi anna allaha yara te su neexoon borom bi subhaanahu kera ba nit ki defee njuumte la wala moy ga wala tooñ ga bu neexoon boromam mu weer ko ci kanam ñépp di san mu weer ko ci kanam ñépp bu ko neexoon waaw loolu nag ak mbaaxam moom borom subhaanahu wa li kenn xamul fu mu toll sunu góor ga alxaaj Ibrahima Saaxo bu daan firi xafoor ak raxiim bu la ko jàppalee rek tabarkàlla sa xol sedd ci kamaalu birrihi subhanahu wa taala waaw ndax dafa bokk ci ay tulam ak i meloom albarru albarru waaw kamaalu barrihi dafa bokk ci ay turam moom subhanahu wa taala albarru mbaax googu nga xam ne moom la yàlla baax nag dafa bokk ci kon ay meloom mu suturaal nit ki suturaal ki koy def lu mbëggut suturaal ki koy tooñ waaw waaye day wane it matug lottug jaam bi nga xam ne mooy def te bëgg ko suturaal waaw mu tàmbali nag di yër boppam moom jaam bi waaw bu yëree boppam yër rek dana gis mbaaxuk borom bi gis rafetalu borom bi gis teraanga yi borom bi waaw yooyu yépp jural ko mu xam ne ku dul yàlla mënut lii wa xariya baabal xayr yaa rabbi lam yufit mu xam ne kudul yàlla mënut lii doomu aadama mën naa suturaal morom ja waaye ndax mën naa dëkke suturaal ko yàlla moom mën naa suutural nit te du yàgg mukk ba mu weer ko addis ba nee yàlla dana suutural nit fii ëllëg mu suutural ku suutural soo xam ne nit ka du ko gëm waaw su ko defee mbokk yi bu loolu amee mu xam mbaaxug yàlla gi rafetalug yàlla gi teraangay yàlla ji léegi day daal di bàyyi lépp tàmbali nag di ko zikkër di ko sukkuru di ko jaamu-jaamu gu rafet hmm? waaw waaw ndax yooyu nga xam ne càggantee ku ko juraloon bu walbatikoo day dindi càggante ga sànni ko fële mbokk yi maa ngi ci ilallahi ibadallah maa ngi ci tomb bu tudd thamaraatu at tawba may ñitum tuub maa ngi ci wa inni la xafaarun liman taaba waaye maa ngi ci tegtal yi nga xam ne mooy wan nit ki ne ko imaan na mi ngi bees mooy mu xam mbaaxu mbaaxu borom bi subhaanahu wa taala wa bokk na ca yooye wan nit ki ne ko sa sa imaan gaa ngi bees si shuhuudu xilmillah waaw teew gu muy teew ci teey gi yàlla teey wolof naan ko laabiir waaw teey gi yàlla teey wolof naan ko laabiir waaw ndax kiy def alxatia bu ko doon def ku ràmbax mbaa ku yàkkamti bu defee rekk mu pes waaw waaye yàlla yàkkamtiwul waaw su ko neexoon muy gaawe mbugali nit ñi waaw nga def léegi mu mbugal la léegi kee def léegi mu mbugal ko léegi walakinahu alxalimu lasi eh, laa yajil aw laa yajil moo di ku laa biir ki nga xam ne ku tey ki nga xam ne yàkkamtiwul ah yàkkamtiwul loolu mën a jural nit ki mu xam tur wa ca turam ya alxalim waaw alxalim ku tey ki waaw loolu ci ay melo ay melo mi ki turam la bokk waaw su ko defee alxilmu dafa am solo lool bu ko jaam bi amee mooy mag nga ci biir la xafaarun liman taaba wa minha maarifatul abdi karama rabbihi jaan bi xam teraanga yi boroomam teraanga yoo xam ne moo tax mu mën a nangu ngant ngant sàngam damaa dal mu nangu ngant sàngam damaa dal mu nangu moom nun la mel moom subhaanahu wa taala ndax ngànt yooyu nga xam ne mooy dal nit te yàlla di ko ko nangul nit léeg-léeg dara dal ko duñ ko nangul ngànt ndax saxaaba yi dañuy dox ci àll ba mu yàgg ñu seen jenn waay waa ji bëgg leen wax ne jullit na laa ni yéen daañu leen assalaamu aleykum ñu ne ko eh, sa assalaamu aleykum àggul ci sa xol bi sa xar yi nga bëgg rawale rek bañ ko waxee yonent mu a la ci seen yoon lu ci seen yoon kon ngàntul nit fi ne dafa bokk ci ci yar éducation waaw xam naa ñoom Marianne ñiy def sud éducation yar gone du def lu mu wax lu mu wax nga weddi ko ku koy def gone yaa ngi koy jàngal fent yëgu ko gone dañ koy gëm gëm gi nga koy gëm day yóbbu ko ci moom dootul fenati waaye bu dee lu wax nga weddi ko ak weddi ko nag wedde ko saaga mel ni nogay da ngay waxu daal di jaar fu bon déedéet da nga koy gëm waaw mu tax ngànt yooyu sunu borom di nangul nit ñi ci wàllu tarbiya la bokk waaw yoon ñi mu yéex a ñëw ah waaw da caa yàgg di mu ne ah, sama dàll moo daggoon nga ne ah, mu jeex waaye soo dàll dëggut fenn daal toj nopp ba danga nga doon taxawaalu Mhm. loolu jeexantal bi muy def ci yar baaxul moo tax yar ku teeye ko man waaw ku teey moo ko man waaw su ko defee borom bi subhaanahu wa taala ci tedd ngaam jooju lay nangoo ngànt yi waaw nangu càggante yi léeg-léeg nit dem tool seytaane xëy fa ak yu mel yu mel noonu waaye tedd nga am moom suñu borom subhaanahu wa tax na ngànt lu ñëw mu nangu ko du gedd moom borom bi loolu du aw meloom waaw léegi kooku tam loolu day def kon bu mu ñibbisee zikr ak shukru tàmbalee dundal ci moom mu am genn cofeel mbëggeel gum am ci yàlla ndax dafa demoon dafa dellu si léegi dafa tuub dafa ñëw bi mu ñëwee Uh, wa inni la waaw wa inni la xafaarun liman wa minha bokk na ca tegtal yooya mu gis fadluhu fi maxfirati mbaaxu yàlla gi ci njëggalam gi ah waaw ndax almaxfira fadlu min yàlla kenn forcé ko ci mu jëggal nu kon bu maxfira amee rek ak mbaax la ci moom waaw ak mbaax la ci moom waaye su fekkoon lu waay def mu jàppe la ko na alxuraan waxoon mu ne kon maa taraka aleyha min daaba waaw bu fekkoon yàlla ku ko tooñ faatu dina kon doo séen kuy taxaw ci kaw suuf hmm? waaw waaw jalla jalaalu azza kamaalu kon ci mbaaxam gi moo tax muy jëggale ci mbaaxam gi moo tax muy jëllale kon ki nga xam ne daa tuub mu jéggal ko jëllaleel ko war na di ko sant waaye war na koo bëgg walbatiku nag ñibbisil ko kontaan kontaan ca ñibbise ga waaye bég ca waaw ndax turam woowu di alxafaar Ah, ak melo yu ci ànd yépp tabarakallah ci xaysu al ubudiya wal mahabba wal maarifa mbokk yi maa ngi ci ilallahi ibadallah maa ngi ci thamaratu tawba meññitum tuub maa ngi ci meññit moom li muy def bi ko ñetteel mooy tajdiidu oh, al iman maa ngi ci wa inni la xafaarun liman taaba nekk ci màndarga yi nga xam ne bu feeñee nit ki xam ne imaanam mi ngi feeñ mi ngi mi ngi mi ngi bees si wa minha wa minha an taktamila taibu maratiba dulli wal xudu li rabbihi mooy toroxlu gi nit ki toroxlul borom bi topp gi mu koy topp ak nangu gi muy nangu ci kanamam ak soxla gi muy soxla njëggalu boromam ah yooyu day bu amee dana xam ne kon tuubam gi mu ngi bees siwaat mu ngi baax siwaat waaw mu ngoog loolu ëpp na di sàggane ëpp na di bàyyi waaw yooyu nag su fekkee ñëw na ci nit ki mu toroxlu ko toroxlu ko ubodiya day am ñeenti martaba yu am solo yu nekk ci kanam nit ki boroom xam-xam yi daan jàngale tasawuf di ci yar nit ñi di cer seen ruux ba biir géeg biti gi nekk benn ñooy wax ak séddale ubboodee googu ak toroxlu googu ci ay ay martaba ñeenti martaba ba ca njëkk ba ca njëkk diggante borom bi la ak boromam diggante borom bi la ak boromam borom xam-xam yi di ko tuddee dullal xaaja wal faqri ilallah toroxlu goo xam ne gi mooy toroxlu soxla li sa borom yor waaye mooy soxla goog soxla ak njëggalam ak suturaam waaw ahlu samaawaati wal ard jamian muxtaajuuna ilay waa asamaan sépp soxla borom boobu waa suuf ñépp a ko soxla ni ñu soxlaa ndox ak courant téléphone lu nu ko raw lañ soxlaa yooyu hmm? waaw waaw lu ko raw lañ soxlaa yooyu ñun ñépp dañoo ànd fuqaraa ilay moom nag moom yàlla moom képp alxaniyu moom rekk omal moom rekk soxlaalul kenn ci ñun amul kenn koo xam ne kii li ngay def bu ko yàlla ñàkkee du baax amut amut waaw ne doomu aadama su loolu amoon danga gis ñu ñëpp ñu xëy benn bis rek grève waaw ñun ñëpp da nga gis benn bis dañu xëy rek grève waaw ñun lañ bëri ay grève buñ xamoon ne buñ grèvee mu wàññi yàlla dara kon de dañ xëy benn bis rek syndicaliste yi woo ñu ñu grève ñu grève wala wala euh, weeru koor ñëw rek syndicaliste nañu nañ grève ren bu kenn woor ñu ne lu xew ñu ne yàllaa fi indi corona waaye suñu borom fi ne buñ grèveoon loolu wàññi dara <laughs> yaay mu jàgg dëpp rek waaw la waa jën woon bàyyi na julli ñu ne ko lu xew mu ne yàlla moo ñëw jël ab aawam ñu ne waaw mu ne mu jëlub ñu ne waaw mu mu jël taawam ñu ne waaw mu ne caat mi sax bàyyiwu ko fi waaye bu ko jëloon moom ci boppam sax la mbokk yi waa asamaan ak waa suuf ñépp yas aloona ñu ngi koy tàllal loxo di ko ñaan moom nag du ñaan kenn du talal loxo kenn moom subhaanahu wa taala ndax soxla lam yor martabaam ñaareel bi mooy toroxlug topp ak toroxlug jàmm toroxlug topp ak toroxlug jaamu toroxlu goo xam ne gi toroxlu tànneef la bi maana euh, coobarewu la loolu nag xaasa bi ahli taatihi te loolu mooy sirrul ubudiya waaw secret bi nekk ci al ubudiya ci ginnaaw topp yàlla googu la làqatu topp googu dullu taati moo koy indil nit waaw toroxlu topp martabam ñetteel bi dullul mahabba mooy toroxlu bëgg ndax mbokk yi ku bëgg ku bëgg toroxlul jëmm jëm bëgg ku bëgg nangul jëmm jëm bëgg waaw ku bëgg rek daanaka mel ni loolu tubarkalla fal mahabba euh, mooy li nga xam ne asasat ala adillati al mooy sos bëgg googu nga xam ne moom la nit ki di bëgg bi ci mujj ci martaba yooyu muy arabia mooy dullul maasiya wal jinaaya mooy toroxlu tooñ sa borom mooy ko mbokk yi ñeenti martaba yooyu yépp daa war a def ci jaam bi toroxlul borom subhanahu wa taala akmal la gën a mat wa atam waaw te loolu day may jaam bi euh, yàlla bëgg ko waaye mën na koo may mu bëgg yàlla ku bëgg yàlla topp ko waaw tabarkalla topp nga jural la eh, nga sopp ko mbokk yi kon sunu bindu tey moo doon wa indi la xafaarun liman taaba di bunt bu génn ci biir tajdiidul mahabba tajdiidul mahabba di bunt bu génn ci biir sama samaraatu at tawba teg leen seen baram foofu buñ ko dégloo benn yoon ñaar ñett jàpp ñeent incha allah daanu indi bind bu bees jërë ngeen jëf suñu mbokk yi xëy ci xibaar yaa ngi nii taxaw yor seen i kayit bëgg leen a firiñ fàncal xibaar ci tubaab firiñ fàncal ko ci wolof ñaaneen yàlla ñoom ak yéen ak suñu technicien bi ak suñu sponsor mii di C3S yàlla yàlla defar seeni mbir defar suñuy mbir ci def ci suñuy poste dara ki naan daloon coxtaani moo di seen mbokk Alioune Sall in uridu illa islaaha ma tataatu wa ma tawfiqi illa billah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa